actu moo ci titre Baye Ablaye ak euh, ay accident yoo xam ñu ngi koy nemmeeku ñu jàpp ni lu ci bari ñi nga xam ne ñoo di jakarta yi ñoom ñoo koy causé Birahim ndax dañu xamul lu jëm ci code de la route ak ay interrogation yoo xam ne également yéenekaay bi euh, posé na ko tey est-ce que lijjanti nañu code de la route mm-hmm. lijjanti wuñu code de la route mm-hmm. gis nga euh, dañu leen di nuyu parce que dañu bokk ci circulation bari sax ci circulation rawatina fii ci Dakar am na ay jamono tuuti nga ci daan gis léegi daanaka ñoom ñoo yore lépp mu indi beneen coow sax dinaa ci ñëw parce que euh, ñi ñu woowee transport régulier yi ay taxi ak yooyu ña ngay jooytu tax euh, daanaka lu bari daf leen xaw a tënk mais euh, Jakarta ñoom fu seen bët xaj ñoom jàpp nañu moto ba xaj na fa non c'est c'est c'est très problématique xam nga. chiffre bi euh, le point joxe peut-être mën nañ ko minimiser mais c'est c'est c'est extrêmement grave ñu ne la ñi yore wàllu wér-gu-yaram sapeur pompier yooyu dañ la naan ci juróomi accident ñu leen woo leen am na ku ci faatu wala ku ci am gaañu gaañu ñett ñi ci mbirum Jakarta la ce n'est pas à minimiser parce que il faut partie du décor aujourd'hui Dakar duggal foo ne foo foo mën a jaar ci Dakar léegi dem nañu ba fa nga daan gis garage taxi wala garage clando entre guillemets léegi ay garage wala ay point ngay gis yu Jakarta pourquoi est-ce qu'il y a cette euh, euh floraison de moto Jakarta am na ay jamono la ko tàmbali woon mooy mbirum cak-cak la woon pour ñëwal indil ma yóbbante nangam wala demal jëlali ma nangam ñu dem ba marchandise wala matériel bañ daan jëli léegi ay nit la ñuy jëli wala lañuy yóbbu da ngay gis xale bu jigéen boo xamee ni day solu ba rafet waaye peut-être taxi bi cher na wala embouteillage sonal na ko mu dugg yéeg ci kaw Jakarta mais sous quelles conditions amuñu casque casque ña ciy sol casque dañ koy wàññi euh, Jakarta boo xamee ni xool leen amuñu sax am na ci yu bari yoo xamee ni. amuñu sax rétroviseur maanaam duñu mën a xool ci ginnaaw muy gauche mu la droite ñoom la ñuy xool mooy la seen kanam ak seen bët fu mu xaj conséquence beaucoup d' accident la circulation ba pare accident yu gën a bon yu gën a mortel parce que nga ñëw par exemple dajeek camion ñaata yoon lañ fi wax camion boo xamee ni daanaka jakarta bi daa jaar ci suuf wala camion bee jaar ci kaw jakarta bi loo xamee ni maanaam mënoo cee mucc ñi ci am ay damm-damm ay gaañu gaañu wala ñi ciy faatu bari nañu tout simplement parce que dafa am loo xam ne autorités yi ñoom ñoo ko réguler wul su ma nee autorités yi c'est pas ñi fi nekk tey ñi fi nekk dem mais autorités yi de manière générale ñi ngay ñëwee police taxawloo gendarme euh, wala gendarmerie taxawloo benn particulier wala taxi wala oto bu mu mën a doon. mais noonu lañ ko war a defee ci jakartaay il arrive quelquefois nga gis ñu def ay xeetu brafle boo xamee ni da ngay ñëw fekk ci benn intersection wala ci benn point nga ñëw fekk fa lu tollu téeméeri euh, borom moto li ci ëpp am ñu permis jakarta bi euh, boo da ngay dem Kaolack ngay dem jëndee ko deux cent mille wala nga ñëw fii ci Dakar am na ñoo xam ne mën nañ la ko jaay ay deux cent mille deux cent cinquante mille nga tàmbali doon jakarta man ngay def yóbbu ay course wala dem euh, jëlee ay yóbbante wala léegi de plus en plus ngay xëccoo ak transport normaux yi transport particulier muy euh, taxi muy yeneen ak yeneen euh, li tax ma doon wax naa ni c'est un sujet boo xamee ni peut-être ñi mën nañ ko romb mais qui est non seulement intéressant important parce qu'il y a des gens qui meurent et aujourd'hui borom oto yi dawal ci tali bi léegi dañ daan xool ci ay jamono camions yi wala njaganjaay yi donte dañ leen di xaw a tooñ wala karapi ji léegi kuy dawal la ngay njëkk a bàyyi xel mooy jakarta ba pare am ñu ci rax léegi yamatuñu ci yóbbu nit ak dellu si nit wala yóbbu matériel wala yóbbu marchandise mais léegi dafa am ñoo xamante dañ nekk di agressé on a vu euh, durant le week-end euh, boobu nga xamante dañ ko agressé yàllaa ko sauvé ñu ko mën a waxee waaye kon bakkanam desoon ci te ñu ne la ci biir am na ñoo xamee ni moto la ñu yoroon parce que mooy gën a gaaw boo leen bëggee dàqe ak oto doo leen mën a jot parce que il se faufile entre les véhicules te dañuy yéeg ba ci ay passerelles dañuy yéeg ci passerelles yi war a jéggi bu ñu yéegee ci passerelle jéggi yow mi yore oto police wala oto gendarmerie noo leen di toppee pour te dire que changement sax am na ci fan yee passé dama gis benn rafle guddi ay je pense euh, vers euh, zéro heure ou une heure du matin L200 police bi ay civil nekk ci en fait ay policiers en civil ci seen ginnaaw ñaari borom moto nekk ci yoo xam ne moto jakarta la ñu yore doon ay policiers également lu ko waral mooy parce que xam nañu ni dañuy dañuy topp am na si ñoo xamee ne moto yooyu la ñu mën a yore il faut que l'État ci ay CETUD ak euh, kuréel yi nga xamee ni ñoom ñoo yore transport ñu mën a également réguler ce transport la mën a xam kan moo am sañ-sañu tout le monde fait du Jakarta parce que souvent dañu amul choix am ñu liggéey wala seen liggéey tax ko demee noonu. 2000 mhm. francs wala 3000 francs bi ñuy gagné mhm. par jour mën na leen servir pour joxe seen dépense quotidienne mhm. wala pour gérer yenn urgence ci biir kër gi. lu ko waral parce que amuñu liggéey parce que joxuñu leen liggéey ñu ci ëpp exode rural bi ñenn ñi dañ daan ñëw di def boutique mbagg di jaay ay bagages ci mbedd bi léegi. il préfère deux cent mille ba ñuy dem jëndee marchandise pour jaayaat ko ñu jënd ci benn jakarta ay clients di dem di ñëw di dem di ñëw euh, mais euh, sans aucune régulation et malheureusement ça a des conséquences sur euh, sur la circulation euh, neewuñu buñ leen nañ leen tere waxuma lool mais nañu xool nu ñu koy réguler. si par rapport ak code de la